mbokk yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp te di leen seero di leen balu aq di balu aq ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom defal ko fan gudd ak wér yaram di nuyu mboolem jullit yëpp it. di am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ci seen émission bu am solo boobu nga xam ne mooy émission gàggantiku di émission boo xam ne seen seen MKTV muy seenu Muxaddamatul Xidma TV moo leen koy defal di seen mu Grande Mosquée de ci weer wu nekk ñaari yoon le 23 ak le 9. émission bi nag dafay aju ci ay laaj ak ay tontu yoo xam ne dafay yitteel jullit yi ci seen diine ak ci seen mbir yi dundu àddina ñu ciy dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñoom lañ koy àndal ñu ñu ciy gindi. tey jii nag ñëwaat nañ fii ci Eh, kër sëriñ Bakke Abdourahman ngeen xam ko muy mufti di borom xam-xam te ñu meen ko bu baax a baax ci seenu Muxaddamatul Xidma TV ñu ñëw fi ngir fas yéene ànd ak moom ngir ko ci suñu bindu tey xam ngeen ne bokk yi weeru koor jub na eh, li des ci suñu diggante ak koor gi fan yu néew la kon jaadu na buñ ñëwee ci sëriñ bi eh, li ñu koy laaj tey mu aju ci koor ak lu ci aju ngir jullit yi man koo yóbbuloo man koo waajale seen koor ngir fàttaliku nafar kon sëriñ bi tey e, ginnaaw bu ñu la nuyoo jox la kàddu gi nga nuyoo dañuy ñëw ci nga gàggante ñu ci bind yoo xam ne danga ñu koy jox ci jëmmi koor ak ay atteem ak ay tegginam kon sëriñ bisimilah aouzu billahi min ashaytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar euh, sëriñ Abdou Lahad maa ngi leen di nuyu sëriñ Abdou Khadir ak mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ëttub xam bu am solo bii di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru Chaban ak weeru Ramadan bu mag bi ñu dëgmal. noonu nga ko waxee weer bu am solo la wax ne euh, bu jub see jullit ñi war nañoo gën a bàyyi xel weer woowu. Ah. nafaraat buntu boobu. Ah. ngir bu dëkkee ñu mën koo jox ak li ci nekk ci ay njëriñ ak yiw ku ko màng incha allah taala sa mbir mën naa jekk àdduna ak alaxira yàlla na ko yàlla defal jërëjëf sëriñ bi e, ñi ngi sant bu baax ci am solo bi gannaaw loolu sëriñ bi dañoo bëggoon rek laaj la lan mooy koor dëgg-dëgg koor daal boo ñu ko doon tënkal mooy lan ak luy ab àtteem e, jërëjëf sëriñ Abdou Lahad koor de ak jaamu yàlla la ci jaamu yàlla yi hmm. diine yàlla ji nga xam ne yàlla da koo taxawal yonent islaam nee na ci juróomi kenu koor mi ci la bokk xam ne bu ko téye mm-hmm. kon mm-hmm. kon kenn du matal diine te boo ko sàggane mm-hmm. kon ponk la ci ponk <coughs> lislaam yi di jaamu yàlla goo ko mën a moo tax ci xadis suxut yi mu wax ne maa moom koor moomoom yëpp waaye waxin la ci ne nit man nit bu ne woor naa yàlla rek xam ne woor na wala wóor ndax man nga def lu ne làqut daf ko boo génne ne woor naa kenn du ko indi ci kaw kenn mënu kenn mënu laa atte sax ndax gisul li nga lekk gisul li nga naan gisul li def lu dog ko fekk yàlla xam ne ci biir ne wóoroo moo tax sawmu lii wa ana ajzi bihi mm-hmm. kon ak jaamu yàlla boo xam ne dafa laal bakkan doomu aadama it mm-hmm. ndax ba bakkan doomu aadama lekk ak naan da ko ñor ak jaxasoo ñu ne la nag boo wooree da téye sa bopp ci yooyu téye sa doo lekk doo naan doo jaxasoo yar ba jant bi soo mm-hmm. loolu mooy woor bis bi su ko defee weeru weeru ramadan yëpp lañ santaane nit ñi def ko mu jaamu yàlla gu màgg-màgg boo xam ne bari na lool ay jiw nag ndax niñ ko xam ne seen iblaat suñu borom li mu digal jaam ñi du du njariñam moom yàlla mhm. yàlla màggaayam weesu na ay jaamam di ko jariñ mhm. waaye bëgg a jariñ jaam ñi moo tax mu leen digal mhm. yuxillu lahum tayibaat wa yuxarrimu alayhim alxabaa'is lu mu tere it lu bon la ci jaam nga xam ñoom la bëgg a musal tax mu tere leen ko lu mu leen digal seen njariñ ñoom euh, moo tax sëriñ ba mu ko ñaan wala tuaxihum bi ma laa yanqusu wa lahum habi alladi laa yanfa topp yàlla gi nga xam du la jëriñ dara mhm. ñoom li ngay jël yàlla nga leen ko may waaye nag bu leen jàppee mooy yàlla gi nga xam ne lu mu rëy rëy du la ñu dara lu tee nga yàlla du tee nga doon ki nga kon kon jaamu yàlla la goo xam ne jaam bi na yëg ne yàllaa ko ko sant te ngir jariñ ko la mhm. bi ci des it borom xam-xam dem gis ne li na ci koor ci ay njariñi àdduna ay xekkam yoo xam ne kenn xamu nu mu mhm. ba ñu doon wut yàlla sax dañuy def régime ngir bëgg am wér gu wax ji ñuy wax naan soo moo tax sexoo doon tub mm. maanaam mu la maanaam woor dana joxe wér yaram ndax ab machine la buy fonctionné mm-hmm. waxtu wu ne bu yàggee soxla nag dal ngir mën a mën a mën a mën a mën gën a yàq day nag nit bu dee lekk naan fukki weer ak benn heure bu soxlaa lekk bu soxlaa naan benn weer ñu ne ci nag yamaleel li nga lekk foofu jar nañu bàyyi xel ne lekk koor du naa ko faral di wax du soppi waxtu lekk mm-hmm. waaye wàññi lekk la loolu moom ñu bari war nañ ko dégg lu soppi waxtu lekk wàññi lekk bari ci ñun nag dañoo jàpp ne rek. bëgg fay lekk gi ci guddi waaw li bu jant bi sooyee daal fii jant fajar fas nañ yéene li mu waroon ci yoon li mu waroon def ci yoon quatre heures yi. Mm. moom dinañ ko bokk foofu. ko defee léegi loolu lu muy jur mooy léeg-léeg safaanu woor doon tax a mm-hmm. léegi nit ñi dañuy wax ba ëpp wéradi. waaw li ñuy consommer ci suukar ëpp na li ñu jël ci diw ëpp na jël ñam yu diis ëpp na. waaw sëriñ bi jàngaloon mel noonu nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne boo leen fekkee ñuy ndog wala ñuy xëdd da ngay jàpp ne aw nangati mm-hmm, mm-hmm. bu baax doom yi akulu aklal baqari waxta futuuri yi waxta saxari mm-hmm. ma xam ne ne ñu bàyyi xel ni wàññi lekk la nga xam ne jaadu woon na tey bu gi jeexee ñëpp sa poids wàññiku boo dawee nga ndogu bu ko defee li ci des nag nga nga nga nga mën nga koo jaamu yàlla gën a sakkanal sa sa sa dund ci jaamu ci yàlla kon yooyu mën na bàyyi xel. bëgg a dog bëgg a ndaw bëgg a mbëssan bëgg a ah, xaddu. ah xam nga loolu bokk si dafa yëf. Hmm, xanaa loo xam ne ci wenn quatre heures atuna ko woon. Hmm. léegi ñoom diggante juróom ñetti waxtu wala juróom-ñeenti waxtu. Hmm. ñoom dañuy dog ndogu reer xëdd. ñeenti mbir xëy. dëgg li doon sunna moom ndogu ak xëdd. Euh, bu jant bi sooyee nga dog dog tàndara ak ndox ngoy def. boo jullee ba sëlmal dem ndogu. ko seetloo ñaari mbir rek la hmm. yéene ji nga yéene jaamu yàlla gi ndax nag innamal a'maalu binniyaat faw nga yéene ne lii kat hmm. bàyyi goo bàyyi lekk naan ak jaxasoo yéene ji mooy jaamu yàlla ji yàlla moo ko digal mu ko def ngir moom hmm. loolu nga fas ko bu weer xasee feeñ rek mën ngaa fasal weer moo tax ci biir yéene googu sax dama bëgg nga tuuti ci lay war maanaam weer lay war waaw moom saa ne weeri feeñ na guddi googu ci la ñuy fase fii ak fajar jotul foofu fase baax waaye nag bu boo négee fajar jot nga dara fas moom bis boobu fasutoo daa war a jiitu fajar mbaa mu ànd ak moom kon ni mag ñi baaxoo def fii kilifa yi nga xam ne bu ñeweeri feeñ na ñëw ci jumaa ji jiite nit ñi gee waar leen gën leen a soññ ci weer lu am solo la nit ñi boobaa boo demee sa nag mën ngaa daal di fas yéenee woor weer yëpp fii ak amoo ngànt ba dog wala nga génn dëkk bi yeesalaat yéene ji waru la mhm. doonte nag sopp dañ ko guddi gu ne waaye ba laa yeesalaat yéene war nga am ngànt ba dog walla nga xas génn ndax boo xasee génn di tukki war waratu la mhm. bu la neexoon dog kooku bu fekkee dangaa ngaa tànn di woor te moo gën guddi gu jot da ngay yéene moom kon da lay war guddi gu jot nga yéene woor su ndax su la neexoon bu suba nga ne man kat ci laa nekk suba dama samay samay samay déplacement day bari mhm. kon damay doon kon guddi guddi gu nekk da ngay sa bala nga fajar da nga yéene woor bis waaye bu dee yaa ngi fi nga dëkk nag amoo benn ngànt bu weeru teroo ci guddi gi nga fas yéene woor weer yëpp fii yëpp ngànt am ba nga dog mhm. yeesal woor la loolu di sopp nañ ko guddi gën mhm. loolu am na solo loolu ñu xel mhm. mooy ponk bi ci jiitu li ci des mooy nga téye sa bopp ci lépp luy dogloo lekk ak naan ak jaxasoo ak tabbal aw ñam ci sa biir li ko tàmbalee fajar ba jant bi so ba cëg la ñuy woo waaye guddi kenn ko woon mhm. loolu mu faratay ñaar su ko defee nag suñ sunna yi bokk na ca teel dog mhm. ginnaaw bu jant bi sooy maanaam ci lislaam yàlla mi la woor la woon bu nee dogal rek dogal maanaam teel a wane ak sa topp ndigal wane man daal ndekete mhm. lii may def lépp def nit ñi sama bakkan ndigal doon ki lay tënk moo tax ñu bëgg fu ñu ne dogal rek dogal waaw xëy na rek dinaa ko bàyyiloo xel mbokk yi sëy blaat ñoom hmm. ñu xam ne teel a dog lañ santaane li sunna mooy teel a dog waaye du teel a ndogu <laughs> kon mën nañuy dog ndox ak tàndarma boo mu tàndarma nga naan ndox hmm. su ko defee nag euh, loolu la hmm. bul nañ naan damay lëndamal waaye damay julti ba sëlmal man door a dog santuñ la ko keneen wooral neen la jant bi sono dogal dafa ndigal li xëdd it yeexee ko sunna la xëdd mi ngi tàmbalee minuit maanaam fu guddi gi xaaje rek bëgg wax fu guddi gi xaaje jant bi sooyee buñ xamee ne ñaata waxtu muy guddi gi fu mu xaaje rek la fa tàmbalee loo lekkati yéene ca xëdd-xëdd mm-hmm. waaye dañoo sopp nag nga yeexe li gën a tàmbu daal mooy nga ba boo noppee ci xëdd boo toogee fukki minute ak juróom jàpp ñaar fukk ñu nodd ñu nodd fajar nag bu guddi gi weesoo xaaj moom loo fi lekkati yéene ci xëdd xëdd xëdd ci boppam sunna la yeexe ko beneen sunna la kon kii reer xëy na jàpp ne mënta yow it ne jàpp ne bu muy reer na ci yéeni xëdd kon dana am tuyaabay xëdd mhm. donte ni yeexe yi am na jeneen jeneen seen sunna su koor ji dégg nga ba tey bokk na ci sunna ci koor gi téye soo làmmiñ mhm. ci wax ju amul njariñ waaye du téye soo làmmiñ ci wax ju wax ju baaxut mhm. waaye ñi dañuy jaawale loolu téye soo làmmiñ ci wax ju baaxut farata la ci waxtu yëpp jamono yëpp ramadan nag daan màgg ba nga xam ne dañoo bëgg bu dikkee wax ju amul njëriñ ay kafaki taaxal yëpp nga bokk nag tarkiis ci lu baax jàng alxuraan jàng xasida tudd yàlla teewe jataay yu baax yi ñuy wax wax lu baax jàngale jataay yi ñuy sikkare nga xam daal su dangay fexe ba feesal dell ak lu baax waaye loolu moom daa mel ne ko bëgg a safaane ndax ñoom koor jibee fi ne xam naa ne ña ngay tëgg filmé yaag sketch yaag yooyu noonu moom nga xam ne loolu ñàkk xam la mhm. ndax wax ju amul njëriñ ju jëmul kenn fenn te koor nag day day zorf day waxtu woo xam ne maanaam daa fees dell ak i jëriñ mhm. sàggan ba mu jàll romb xam nga am na lu lu lu siiw fii see blaat mag ñi nit ñi di ko wax mhm. te mag ñi safaanoo mag ñi ci loolu lool mhm. fii di dañuy wax dañuy dàq ko nga xam ne dañuy wane ne koor daa metti léegi nag dañuy bëgg nit ñi féexal leen moo tax ñuy def ay yooyu koor méttiwut ñëpp laaj ak yiw la ñu baax ñëpp dañ doon yàkkam ci ñëw yaa xayra a ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi ki leen wax loolu kooku yàqat na koor ñëw mhm. te bu koor gi dem bu koy tàggu da koy tàggu ku métti mu jeex mhm. ndax daa xam li ci ne mhm. kon ñun itam jaaduwut ci ñun ay jullit ñuy jàmbat yii koor waa ngi ñëw de tàngoor bi mu war a fekk nangam nangam ñenn ñi it waajal seen bopp ci ne koor daa métti bu bu dikkee daal dañuy fexe nañu dàq mën a dàq seen koor ci ay ay ay léeb ak i lupp ak i caaxaan yoo xam benn njëriñ léeg-léeg la ci bari waxtu woo xam ne dañ cee war a am tiyaaba ju dul jeex nga yanu ci bàkkaar yu dul jeex hmm. loolu loolu mat a moytu la hmm. xam ne koor ak yu mel ko kaf jëmu ji li jaadu woon tey xeet yooyu yëpp bu koor dikkee ñu laf ko hmm. amul njëriñ leen waxtu waaye bu ramadan dikkee la yi xam nit ki suba ngoon waxtu wu ne mu am lu bees ba muy déglu alxuraan ba muy déglu ay zikkar nga xam ne day yokk ci wàllu yàlla boo xam di dund loolu moo jaadu woon maro yi amul leen benn njëriñ mm. koor boobu ko fàtte ndax boo ko fàttee rek mën ngaa def wala nga xalaat loolu loolu mu jëriñ mm-hmm. waaye saa boo yëgëri ci koor ga nekk nag da lay ci nga ne ah jaamu yàlla gu màgg laa nekk koo xam ne kat wërta rax dara lu baaxul mm-hmm. wërta rax dara lu amul njëriñ mm-hmm. lu amul njëriñ nga xam ne kon lépp lu muy yëngul am njëriñ la sëriñ bi dañu jàngale ne koor dëgg dëgg dëgg lu lekk ak naan ci yëpp koy def ba ci say xalaat booy xalaat lu ñaaw sa sa sa sama xel wóoru kon daa waxoon ne fa sawmu ay yasuma kullu udwi an kulli ma yafdi fatan li sahwi loolu naa jàpp baax baax seen laaj nga xam ne kon mm-hmm. ndigal yàlla loo xam ne daal cër yëpp lañ bëgg ñu di ko def léegi kon nañ ko war a waajale mm-hmm. di ko séenu ak mbëg mm-hmm. ndax fasam baax la jàppal ne bu ñëwee tey balaa jeex ci la sa aajo faj yow ndax fas nga yéene lépp lu baax la ngi sant nga def yonent yàlla bi yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa sallam mu fi tim ñëpp lim lu baax lu dëkkee woon waaye borom daan dëkkee da maanaam Cheikh Ahmadul Xadim yi radiyallaahu anhu ñëpp xam nañu borom dal masan di hmm. tab gi yéwén gi mbaax gi lépp day dolli macha allah lépp lépp day dolli foofu it la ñu war a nekk ñuy tam hmm. ci dëkk ñu yàq ba yokk suñuy baax waajal gi bokk na ci ni waxtu yi ñu toll seen bilaat hmm. ku ci amoon borom koor nga fay bu kenn wax ne du ma leblante yàlla yàlla leblantul yow yàlla da lay digal ngay topp yow ñu am ngànt moo la waxoon ne dogal moo la joxan digal ñu la fayal kon ndigal lu ñuy joxe la waaye du bor bu ñuy fay yàpp hmm. naa ku ne ci noonu nit war naa gëx dem ci njabootam laaju leen rawatina jigéen ñi xam ne sa baaxoo di am ngànt hmm. waaw daaw sa bari koor ndax fay nga ko bu ne déet hmm. ndax boo ko fay ba ramadan ak si da ngay bokk min al ñu sàggan ñi nga xam ne bu weeru jàllee boo koy fay dañ lay teg ay daal ñu ne faw nga joxe muddu boole ko fay loolu nag mata moytu la kon fexe ba fay bor yi waajal ramadan bu dikkee ñu ànd ceeg mbég ñaan yàlla dund ko te mu yombal ñu hmm. jërëjëf nit ñi nag mën nañ ci jëriñ fi ci àddina am solo la kon mel noonu war si naa ñaanal sant la hmm. ñaan yàlla dëgëral dañ hmm. fekk ko at yu bëree bëri nga rafetu fekkin salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu cant gi yéen noonu lañ leen ciy sant ndax liggéey bi ñoo koy ànd ci waxtu yu nag eh, muy daayira Muxaddamatul Xidma ci conférence yu am solo yi muy waajal ak iftaar yeeg yooyu yëpp ñu ne yéen ñoo koy ànd kon yàlla yàlla gën a yàggal taxawaay bi te gën koo gën gën a dëgëral euh, mbir yëpp ci barakat xaadim kon mbokk yi mi ngi noonu seen émission gàggantiku tey jii dañoo ñëwoon jagleel suñu laaj ci wàllu koor euh, sëriñ bi tont yi ñu ci jox am na solo lool kon yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko te topp ko te suñu borom def ñu dugg ci koor gi ak jàmm mu aar ñu may ñu ba lépp loo xam ne mooy ponk yi mu ci digle ñu def ko mu ñu mucc ci saytaane ba bépp ndog tamit loo xam ne dafay yàq suñu koor wala mu di ko wàññi suñu borom musal ñu ci kon ñu ngi leen di di daje ci beneen émission gàggantiku di sant si Abdou Khadir mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam